ànd ak yéen mbégte contentement ak fierté di leen nuyu di leen ziyaara ah, di leen wax ne nag namoon nañ lool waaye xam naa ni yéen ñu raw waa nuyu la rek lay demee saa su man ak sama yaay ma docteur Jeeg gi ci émission bu mag bi lay émission Jël Jël émission bi nga xamante ni ko waaye jigéen ñi dañ koy topp di ko ki nga xamante ne ni mooy sama sang bi di ziyaar ki nga xamante ne mooy suñu wasila ah, nuyu Mbàkke di la ziar di sukk ci sa kanam di sakku ñaan ci yow ah, di ñëw nag di daal di dugg rek ci waawar di nuyu Serigne Mbaye Sy Mansour di ñaan yàlla guddal fanam lool te mu an ak weer di nuyu di nuyu kilifa diine yépp ak kilifa aada yépp di ñaseen euh, yi ah di nuyu ki nga xamante ne mooy sama papa Bachir Niass maa ngi koy bu baax a baax di ko jiyaar di ñëw fii ci Yoff ah, di nuyu ki nga xamante ni mooy suñu xalifa bàyyiwuma kenn di nuyu kër diine yépp di leen ziyaara di leen jox seen yéeguwaay bu baax a baax a baax a baax ndax ñoom kat nee naa leen yéen a réew mi boo leen nekk woon rek làmbaay ñaaw waaye suñu euh, Sénégal gi jàmm rek moo fi am ndax ñu baax rek a ak ci laay nag duggee daal di nuyu gi saa su nekk rek may ànd ak moom ci émission bi émission jël jël sama yaay booy nuyu naa la naa la daba ceena maa ngi lay tey daf maa dépassé pir xa pir xa mag pir xa mag la bii bu mag la waaw pir xa mag waaye fay kim maamu dem ba ndax ci bi xam naa ci leen mm. lu mu joxe rek girif la de li muy sol li muy sol lay joxe maa la allah maa ngi lay bu baax a baax a baax mm, yow giro uh-huh. euh, tara la jëm la jox jomb la sama waa ji nee naa la yaa génn ak man fii ci robu prêt à porter pare daal di génn ak rama fee ci pirxa te nee naa la di ngay sol moom ngay paqueté di ko jox doomu aadama yi faama fay yàlla na yàlla guddal sa fan nee naa la nit ñi xamuñu ko aka am valeur aka baax aka bëgg nitam rama aka aka bëgg nitam aka mën a wax lu baax maa la ko wax aka mën a rafetal ba mu rafet maa la ko wax macha allah xeebul kenn réewul beewul bokkum day bambi fay la bu baax macha allah waaw bambi sama waa ji macha allah kenn du moom kenn du bambi chéri mbeen maa la ko wax maa ngi lay nuyu bu baax a baax mm-hmm. di la di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokk internet yëpp di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay di leen wax macha allah ñëwati nañu ci seen émission jaljal yi ngeen taamul ko seen bopp bëggal ko seen macha allah ñu gis lépp nag gis lépp tubaarfakàlla macha allah jërë ngeen jëfati kii nga xamante ni si moom moo toog di wax mm-hmm. dañoo toog rek di wax am suñu yéene bu rafet am suñu xol bu rafet mm-hmm. macha allah toog di waxtaan ak yéen pour partager ak yéen waaye nag dékku ngeen ko macha allah macha allah jërë ngeen jëfati mm-hmm. jërë ngeen jëfati ngeen jëf yéen nga xam ne yéen ñuy seetaan dañu daal dugg ci waxtaan bi rek ci biir thème bi leen a indil thème boo xamante ni dafa mucc ci ay indil leen boo xamante ni macha allah dafa am ci réew mi ndax lu ñuy wax rek actualité la loo xamante ni day xew ci réew mi la yaa xam yow nga ko def yow muy jigéen yaa xam nga ko def yow muy góor rama tey ñuy dugg ci li nga xamante ni moom mooy ah, jeeg di ëmb te seeni jëkkër ëmbalu leen Hmm? ñu am ci ay taax yu doy waar hmm. ndax euh, dafa am ko xamante ni dafa ma woo wax ma feebaram ba jooy sa lu mu la wax ba jooy rek loolu lu ko jaaxal la nee naa la nee nañ jigéen rek moo mën a waat ni sama doom bi sama jëkkër ko jur loolu jigéen rek moo ko mën a wax waaye kenn xamul yàlla rek moo xam muy ci ñi nga xamante ni seeni jëkkër dafa tukki ñuy ëmb ci seen ginnaaw muy ñi nga xamante ni dañoo nekk ci biir kër yi nekk ak seeni jëkkër keneen di leen ëmbal kum di seen jëkkër mu bari fi lool rama loolu mooy thème bi tey ñu dugg ci. Mhm. loolu mooy am jëkkër rek amu far. Mhm. ndax bu la sa jëkkër ëmbalul sa faral ëmbal. kese. kenn bi yolewu la. Mhm. danga koo def ci sa coobareeg bopp. dëgg la. am na ñoo xamante ne si nag macha allah dañ leen di violé forcé leen ànd ak ñoom. ba doom sosu ca. dëgg la mais am na ñoo xam ne dañ koy def ci seen coobareeg bopp. bopp ba yàlla dogal ëmb am ci. loolu dafa bari mhm. lool sax lu bon la wala euh, euh, euh, bëgg lu bon la wala wala wala mooy yàlla bu loolu loolu lawal ci lan lañ ko mën a considérer bon ci bon lañ koy lañ koy lañ koy lañ koy féetale mhm. ci mbon lañ koy féetale am na ñoo xamante ni si parce que cas bii ngay wax mhm. man ba may nekk 2S mës naa ko waxtaane xale boo xamante ni si dafa ñëw ci man mm-hmm. ni man am naa sama jëkkër ñetti doom te juru ci kenn ndax mariage force day indi lool mariage forcé waaw mariage force day indi lool ah. ma am naa ñetti doom ñetti doom yi ma am yëpp sama jëkkër juru leen ko lan moo tax lan moo la xamal ne ñetti doom yi nga am yëpp sa jëkkër juru mu ne ma parce que xam naa sama jëkkër ni may àndee ak moom sama jëkkër ma ne ko ah mu ne mën naa ne sama ñaari doom yëpp sax ànduma ak moom mu ne ma samaw far te xale la de waaw wallahi azim xale la ni ma samaw far laay àndal moom laay àndal chaque jour moom laay àndal chaque jour xam naa ne moom moo jur sama doom waaw kay dani ma ba ëmb bii ma ëmb ndax kooku dafa ëmb ba diis bi ma koy gis mu ma ba ëmb bii ma ëmb sax sama fara ma ko parce que dama ko ni bëgguma la wax ko sama yaay wax ko sama pap mu ni ma boo sëyul moom damay dañuy dogoo ak yow parce que moom mbokk la dëgg la mu ma ma sëy ak moom waaye li may li ma sëy ak moom ci biir néeg mën naa ko wàññi ba yàlla dogal na am naa ñaari doom ba maa ngi nii ëmbaat te leer na ma ni moom ëmbalu man ko yow lan moo tax doo taxaw nga waxtaan ak sa boroom kër ni ko carrément kat ëmb bi ma ëmb sax moo ko du sa deret bu ko defee moom mu bàyyi la mhm. ndax ana góor ak xanaa ñàkk fayda gu day de ëmbalu la ba pare nga koy wax lool chaque jour bëgguma la bëgguma mu continuer di ànd ak yow ndax bëgg ma wax naa ko bëggul benn yoon du ñaar yoon mhm. muy benn mhm. kon mariage forcé day indi lool dana indi lool dëgg la waaye caga dana indi lool nañ ma baax éducation la merci éducation parce que tamit ñi nga xamante ni ñooy waajur yi yor xale yi di leen yar ci biir kër gi sa doom boo ko yaree da nga koy war un bon exemple waaye li ngay hmm. def yow mi waajur bi xale bi day defe ni loolu mooy at loolu moo baax mooy bon day yaakaar ni loolu moom moo baax ah, rama li nga wax dëgg la parce am na ci xale yoo xamante ni si ñu ngi xam ki seen yaay di jokkool mm-hmm. ñu naan sama càmmiñu yaay la sama xaritu yaay la mais bu ñu demee ba ci biir dinañ xam parce que dofuñu wallaay yow mi nga xamante ni si yow yaay seen waajur duñ la mën a wax dara dëgg la duñu mën a wax tonton boobu dara dañuy noppi rek ne fatt mais dinañ leer ne kii kat sama sama sama sama kii di ànd ak sama yaay chaque jour mm-hmm. di yëkkati xaalis di jox jàppale sama yaay chaque jour mm-hmm. kii dinañ xam ne kii sama liiwu yaay la rama éducation foofu moo tax dama bëgg a dugg foofu mm-hmm. éducation li nga wax foofu dafa am solo mooy ba ci fen di toog sa doom toog ñu woo la téléphone foo nekk nii nga ni maa ngi béréb sàngam te fekk yaa ngi toog sa doom di ko dégg day defe ne loolu moom moom day yaakaar ni loolu moo baax dëgg la léegi nag bu la góor woowee nga daan ni moom sama càmmiñ li la mm. jël ko waxal ak moom am xaama jox la sa jarbaat bi am na ndayu càmmiñal góor ak jigéen ak jigéen jigéen ju am jëkkër di sëy rawatina sa jëkkër nekku fi sa mm. jëkkër mi ngi tukki ba pare rama euh, li tax man la éducation bi la léegi jeeg ji dañuy tux xam nga ramal li ci réew mi dañ koy wax léegi bu ñuy dox di dox ci seen kanami doom seen doom jooju màggaaleeg loolu dafa ni moo baax baa ñu yónni seen doom wala ñu yónni seen doom léeg-léeg seeni copain ñëw seet leen ci seen biir kër ñu bàyyi seen doom mm-hmm. tëjoo kooka seen doom jël noppam teg ci fenêtre bi di déglu mm-hmm. mu yoo xamante ni nii dafa nekk ci réew mi mm-hmm. sa doom du la ragal sa doom du la respecté da defe ni loolu moo am man démb dafa am koo xamante ni dama bokk ak ñuy waxtaan waxtaan moo ñëw mm-hmm. parce que newoon naa ko loolu dinañ dinañ ci waxtaan def ko ter mm-hmm. mu ne ma bi may tukki dama ba ëmbal sama jabar tukki ma def fa trois ans ñëw fekkaat sama jabar ak ëmb mm-hmm. dégg nga loolu rama nee na bi muy tukki dafa bàyyi jabaram ëmb moom moo ëmbal jabar ji bi muy tukki nee na mu def fa trois ans ñëw fekkaat jabar ji ëmb maanaam jabar ji imbi na ci ginnaawam avant muy ñëw keneen ëmbalaat na jabar ji ko mu wax ko lan bi mu ñëwee nee na moom bi mu ko yëgee mm-hmm. waxul dara mm-hmm. dafa bàyyi noonu nee na bi mu ci kër gi fekk fi jabar ji ak ëmb bi nee bi mu ñëwee bi ko jabar ji mayee ndox mu naan ci la gëj a gis jabar ji jabar ji daa daw nee na bi jabar ji dawee moom woo ko téléphone ni ko diw fan nga nekk mu ne ko mënatumaa toog ci kër gi di jàkkaarloog yow di la xool kooku ni ko amul solo mm-hmm. sa ëmb boobu nga ëmb ci sama buum la juddoo dinaa la suturaal ndax jigéen mooy sunu yaay te jigéen mooy suñu sœur mhm. amul benn problème ñëwal ndaw si ne ko baax na du ma mën nee na mu fanaan ba bër set xëyul gis ndaw si mu woo ndaw si ndaw si ni ko mënumaa ñëw di la xool nee na ma ma ànd ak sama ngor kenn xamul ni dañoo ëmbal sama jabar ci sama ginaam mhm. nee na mu bàyyi noonu bàyyi noonu ba ndaw si xam ne am na fa ñetti dëgg la nee na mu jaaxle mu xëyee mooy sang ay doomam moo leen di toppatoo moo leen yóbbu école ñu jàng nee na jaaxle nag nee boppam bi bëgg a toj ndax ku voyagé def trois ans boo ñëwee yàgg sa jabar war ngeen a dund bégee ak intimité nee na mu jaxasoo nee na ñu teg ci une semaine ndaw si woo ko téléphone ne ko damaa bëgg nga may ma sama baat nee na ma boobu man doyalu ci sama jabar te ëmb bi mu ëmb nee na ma mën naa ko accepter ndax dérangé wu ma ndax mbëggeel gu ma ko bëgg mhm. nee na ma bi ma woowee ni ma may ma sama baat ma ne ko du ma la may sa baat ci àddina nee na ma papa moo ma ne ko may ko baatam ndax nee na moom mënatu laa gis nee na tantaam yaayam ñëpp woo ko na ko may ko baatam ma woo ko na ko du ma la may sa baat mu ne ma boo ma mayul sama baat damay xaru ndax mënatuma nekk ak yow ndax mënatuma laa gis mm-hmm. nee na ci la ko obligé may ko baat ci ñàkk pexe oh. nee na bi mu ko mayee baat nag muy souffrir loolu nee na ba dem ba waroon naa dellu pour ñibbi mënul ñibbi ndax affaire boobu def ko choc mm-hmm. nee na biñ demee dema dema dem ba ci kanam nee na papaam ak yaayam mayaat ko jabar forcé ko ko mm-hmm. nee na jabar ji ñu ko may forcé ko ko bëgg ko waaye nee na amul pexe nee na bi ñu ko forcé jabar ji ba may ko ko nee na ñu takkal ko jabar ji jabar ji ñëw ci biir kër gi ndax nee na ma man damay tukki di ñëw mais en même temps damay def transit nee ma bi jabar ji ñëwee nee na ma wóolootuma je sama jabar ji ma nekkal nee na ma damay dox ci mbedd yi sax di xeelu xale jigéen yi te defuñu ma dara ndax mbetteel bi ma am ak surprise bi ma am nee na ma ku ma gis xale bu jigéen bu ma gis du ma la wóolu ci àdduna nee na ki ñu ko may nee na loolooy problème bi nee na kooku mi ngi ci biir kër gi nee na ma wóoluwuma ko nee na ma damaa jël sama rakk ko ci biir kër gi pour mu ma koy surveiller ah, nee na ma léegi nag li ma naqari ci kooku mooy mhm. nee na ma man damay góor gu jonge mhm. nee na ma damay toppatoo sama jabar mhm. di ko jëndal or di ko jëndal greffage di ko jëndal yére lu ne ma ko jëndal mu ne ma waaye merci sax mënuma koo am ci moom wala ma defal ko dara ba mu sentir ne teral naa mooy ku mujj kii nii mooy ku mujj kii nii mhm. nee na ma ci moom nee na ma li ma bëgg aw ma ko ci moom muy déception jigéen bu ma am ba tax na jël naa jigéen ñëpp maasale leen suur leen kee toog di sëy dafay sëy rek mais nekkatuma góor goo xamante ni bëgg naa ko li war nag maa ngi koy def ci moom mu a ma mais damaa am choc am problème mhm. ma leen laaj loolu nan laa koy dundee ak nan laay def jeeg ba ca biir kër ga mu takk ko mhm. boobu rek mënoon na ko delloo wallaay dëgg la ndax dafa am fële déception gis nga jeeg dinañu muus gis nga góor gu la takk am na jabar yu bari yoo xam dañ naan moo jabaru faj mer la wallaay jabaru faj mer bu mm. doonee seytaaneem dootul dootul doon jabaru faj mer dëgg la jabaru faj mer bu ñëwee lam la kee doon def mm-hmm. mu dàq ko ko fuuf di def lu ko gën a pur mm-hmm. doon seytaane jëkkëram ankay wallaay dootul doon jabaru faj mer wallaay jabar juy dëkk la jabar joo xam ne seytaane jëkkëram lay doon ba day fàtte kee mm-hmm. mais jigéen ñi ci boppam ñoo xamul fi ñuy teg seen tànk xamuñu ko xamuñu ko xam na li fi jële jeeg bee mm-hmm. ñu takk ko moom bi ñu koy takk leer na ko ni jëkkër ji d'accordul woon mm-hmm. ñu indi ko ci biir kër gi waa léegi yow yaa xayti mu laana bu ñu la indee ci biir kër gi yow leer na la goroo la fa dëj mm-hmm. ak njëkke nee na mu ñëw ma dugal ko centre mu jàng ñaw ba ba mën nee na ma ma ko machine ku biir ko tailleur utal ko ay tailleur yu fa nekk di ko ñawal waaw mi ngi noonu mu ne ma te mënumaa am ci moom li ma neex mënumaa am ci moom bànneex xelam nag du jóg mukk cakee cakee kee moo yàq xol bi ba pare xelam mm-hmm. ak xolam du jóg mukk cakee mm-hmm. moom bu deful attention liñ naan da ngay jàpp ci concol kuy daw wallahi dëgg la bu deful attention bu ñu demee mm-hmm. jamono di dox parce que moo kële am ay doom wallahi dëgg la xëy na doom jaaroon na fi mais mën nañu trouver solution dem ba jëmmi jamono ñu toog waxtaane ko parce que kooku ëmb ca gannaam li tax mu taxaw ni mënatul a gis jëkkëram wax naa la ko léegi viol yaa ngi fi te góor ak jigéen courant la wallaay dëgg la moo tax jegeyantoo bu ëpp sax dañu koy bañ nee naa ko kan moo ëmbal sa jabar ji ndax xam nga ko mu ne ma cousin la cousin ba ma tukkee mu ne ma cousin moo daan ñëw ci kër gi di ko seet si ba ëmbal ko waaw mi ngi noonu mi ngi noonu xam nga moo tax xaw ma woon xam nga jëm dëgg la góor ak jigéen moo tax ma ma ma leeralal la yoon wi jigéen dina toll foo xamante ni si muy góor yëpp mhm. muy góor mu jigéen nit rek laay wax sax wallaay nit nit dong nga mën a doon dëgg la da toll foo xamante ni si yow sa jëkkër nekk fi mi mhm. booy jege nit toujours di jege kii chaque jour di ko gis chaque jour xetu parfum wam mu lay jege ngeen di waxtaan ak ak cousin ak cousine ni ñu demee bëree bee kii yooyu day dem ba day indi loo xamante ni si mhm. point la wallaay dëgg la day indi loo xamante ni si yow doo ko bëgg man du ma ko bëgg moo looloo tax nag ñu naan jigéen ak góor nañ soriyanto mm. sa jëkkër nekk fi sax cousin yi da doon ñëw ci biir kër mais limité wu bu mm. ñëwee na toog nga toog ngeen waxtaan mm-hmm. mais di bokk di tëdd di bokk ak di tëdd di di muy ataay di la jox ngay naan mm-hmm. di tëdd di nelaw parce que gis naa ci kaaboo koo xamante ni si da doon day tëdd di nelaw rakku jëkkëram di ko ataaya mais rakku jëkkër ji buy ataaya moom mu ngi nelaw mm-hmm. day jékk ba si yàgg rek gis muy raay tànkam yaa ngi dégg loolu rakku jëkkëram tarakku jëkkëram la di raay tànkam di yéeg moom mi nga xamante ni si moom lañ doon raay tànkam am na loo xamante ni si ma ngi koy yëg ma ngi koy yëg ci yaramam kon li nga wax rek courant loo xam ne courant la ma ngi koy ci yaramam li nga bi nga koy yëgee ci yaramam yàlla xam na ne dañoo jaxasoo comme jëkkër ak jabar mi ngi noonu moo tax góor ak jigéen waruñu jaxasoo noonu rama góor ndax seytaane dafa bari doole góor a ngi naan sàngara gu tëw a dakk mhm. te jigéen ko def loo dëgg la góor a ngi tux cigarette taxaw tux paquet léegi ci ci ci ay seconde mhm. fekk jigéen ak ko def ndax góor bu amee naqar rek yaakaar na ne loolu la mën la mën a mottalikoo muy drogué wu mhm. ci am na ci góor ñu bari ñoo xamante ni ñi ngi koy def ngir seen àdduna jigéen moo ko yàq xam nga ni kii ma wax lii te oto rek la ñu bokk mu nettali ma ko ba rongoñam tuuru ni ma soxna si ma ne ko ah mu ne ma benn jigéen mu ne ma ki ma nekkal dama koo yor ndax bi ma ko sama papa takkalee toog naa atu yàlla du ma ak sama papa parce que boobu bëggatuma jabar mu ne ma ba fii ma waxee yow mu maa mu ne ma bëggatuma jabar bëggatuma am jabar man ndax pour man jigéen ñëpp ñoo yem mu ne ma ndax kii ma njëkk bëgg mu ma tax avant ma koo takk dama koo doxaan ñu bëggante man ak moom ñu gedd seen ca loolu laa ko wax ma ne ko bu ndox tuuroo ak mbàq mooy des mhm. ma ne ko waaye nee nañ bu ndox amul dañuy dem rooti ji waat ma ne ko da ngay delloo si sa xel mu ne ma damay dox nii di ka fekk samay xarit di kii mu ne ma waaye sama biir xol mi ngi yàqu. pourtant nag loolu ko dal ma ngay dal ndaw si. Mm-hmm. ma ne ko ndaw si ndax am na jëkkër mu ne ma amagul jëkkër. Mm-hmm. loolu ko dal. Mm-hmm. ma nga koy dal mi ngi mi ngi gën a lu gën a pur waa ji li muy souffrir. ndax benn dafa tooñ suñu borom dafa tooñ jëkkëram. dëgg la. tey dafa jaratul dara. ci góor ñi jaratul dara ca askan wa mu bokk ak askan wa muy sëy ba pare am way wu dootul fay am way wu dootul fay mhm. doom jooju mënoo koo rey déedéet ko def leen foo ko xoolee sab xol jeex sànq dafa am loo wax lu am solo mhm. daan jigéen dong moo mën a waat daan ni sama doom ji man naa sama jëkkër a ko jur sama jëkkër moo ko jur waaye góorit mhm. xale ngi jóg ni ñaadam ñaadam mu xool xale bi xam ne kii du doomam kii du doomam la ba aka mu fee bari xam ne juru ko ba pare boole li ko neex ak li ko naqari téye ak li ko naqari yëpp téye mhm. dafa am waajoo xamante ni si dafa tukki woon dem états yàgg fa mhm. presque dem am na fa ay quinze ans mhm. tukki yàgg yi tamit rama dañ ko war a maytu tamit boo amee kii ñi tukki ci sa njaboot fekk fi doom doom ju dëgër ñu fekk fi doom ju dëgër muy tëb di dal ni day fase jabar yaayam ak papaam dañ koo nëbb ni ko sa jabar am na doom ci sa gannaaw ndax yàgg gum fa yàgg te xale baa ngi doon toog di muñ fukki at ak juróom ëpp na ko sax mu togg di muñ mais bi mu ñëwee fekk na fi doom kenn waxu ko dara mhm. naka la agsi bi mu ñëwee gis doom ji muy laaj kii kan moo ko jur ndaw si ni ko sama doom muy ree jàppe ko caaxaan après nag ci lañ ko woo mhm. parents yi woo ko ni ko doomam la daf fee am doom sa gannaaw mun leen lan moo tax xool leen ma ko ñun ko mënuñu la koo wax mm-hmm. loolu joué nañ ko sax mais dafa doon dëgg muy koo xamante ni si ku ñu xam mm-hmm. dafa doon dëgg moo tax sax ñu joué waale ko noonu théâtre mm-hmm. mu daan ne ko lan moo tax kii am doom ëmb ba am doom ba doom di dëgër ni tax waxoo leen ma ko ko duñ la ko wax sa que fa nga demoon danga faa yàgg lool dëgg la mu toog di muñ di góorgóorlu mu toog di muñ di góorgóorlu mm-hmm. mu ne da koy fase ñu convoqué leen ñëpp ñu ànd ñëw seet si benn kilifa mm-hmm. yal na yàlla yokk leeram amiin alaaj Youssou Gueye mm-hmm. buñ ko seetsee kooku daan leen daan ko lenn dong de laa laa bëgg nga xamal ma ko boo ko boo ko waatee rek ma man la fase mu dem mu ne ko ay mu ne ko est que yow diiru quinze ans ya nga fa nekk yëpp ànd nga fa jigéen teg kaamil bi ni ko nga teg ci sa loxo rek bu dee àndoo faak jigéen rek nga wax moom daana ko ah loolu moom mënuma koo waat waaw da ko ne bu dee ànd nga faak benn yoon rek nga nga waatal ma ko mënu mm-hmm. ko mënuma koo waat mënu ko it nga waatal ma tegal ma sa loxo ci kaamil bi ba xam ànd nga faak jigéen lu mat fukki yoon mm-hmm. mu daani ko loolu it mënuma ko waat mënu ko waatal ma ba xam mm-hmm. ànd nga faak jigéen lu mat ñaar fukki yoon vingt fois mun ne ko loolu it mënuma ko waan mu ne ko jëlal sa jabar nga ànd ak moom te dem doom ji ci sa buum la jub ndeysaan te nga muñal ko mhm. góor daru ëmb dëgg la waaye bu góor doon ëmb kon yow ay doom nga fi indaale maa la fukki at juróom ya nga fa am li nga indaale fi ñeenti doom jàpp juróom ba dëgg la ba pare rama ni ko jàppal sa jabar ji nga nga góor góorlu mhm. téye ko te xam ne mën naa am fakkastalu benn yoon la fakkastalu yàlla weer mhm. jàppale ko dëgg la mu ànd ak moom ci loolu ànd ak jabar ji ànd ak jabar ji mais xam nga góor li ngay wax dafa fiir dafa fiir dootu ko gëmati ci àddina waaw mm. ba pare li nga wax léegi mm. gis nga waaj yi ngay wax mm-hmm. fi ne même bu suturaaloon jabar ji mm-hmm. dootu wóolu jabar dootu ko wóolu ci àddina dootu ko wóolu ci àddina même bu moo yàq xalam nee na nee na moo yàq xolam ba wóolu nee na moom buy voyager day woowi rakkam ni ko dee surveiller jabaram ba pare nee na ma kii ma am nangu ma mu yor téléphone nee ma damay jël téléphone am téye. léegi moo tax man ma su wàccee fekk mu yor téléphone sax nee na ma damay tiit. moo tax man la kër bu kii dakk lakk na la kaale kër bi kër ba pare ah. rama am na góor ñoo xamante ni ñu ngi Europe. Mhm. di fa takk jabar. te seeni jabar buñ ko yëg. duñ ko yëg. du fi am fa ay doom jaboot fa. yor fa kër yor fa jabar di ko nëbb seeni jabar. du fi jeex. kon nag eh, ñu jàppalante mais man. am na ci góor ñoo xamante ni dañoo dañoo sérieux ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo sérieux ba pare déception du gaaw a denc ñoom mm-hmm. bokkuñu jigéen mm-hmm. Mm-hmm. nee nañ la jigéen du bëgg day miin mais góor mooy bëgg bëgg dof bu bëggee rek bëgg na kon nga la nañu seetaat suñu jikko defaraat ko jot na de ndax réew mi jot na yu yu mel noonu rek mooy mooy mooy taar réew rama mooy bi nañ ko mm-hmm. maytu mm-hmm. rama mooy gaan ci réew mi mel ni tukk sa bënn saa mel ni tulleeg màlle mel ni tulleeg màlle mooy yàlla ba kañ ñu ngi ci xoola duñu biir duñu wasin mm-hmm. ñoo xam ne ku ci ëmb sax dañ naan la seer nga chaque jour ñoo ngi ko cay nekkal te duñu biir duñu wasin maa la ko wax ku ëmb yow la ñuy def seer bi ñoom ni la kenn ëmb ñooy naante bi ni la kenn ëmbatul kenn ëmbatul lañ lay wax wallaay dëgg moo yow yaa fi gisatu jeeg bu ëmb yow daal may ah kon da nga doon xoole ba ëmb nii yaa koy yëg eh, fii daal àddina la mhm. ku battalu yaa ngi piis wallaay dëgg la ku bo xamul yaa ngi yëy naa la wax loolu da lañ lay wax kese ba pare nag ñi nga xam ne xamuñu dara nag jukkee nit ñi bërët uh-huh. daan ni ci sërëx rek ñoom ñooy xëy rek ñu gis leen ak seen xol lu ñuy jooy wallaay dëgg waaye ñi nga xamante ni si dañ cee yàgg mhm. liñ naan yóbbu yaaba laay léeg la la du ñoom bu duñu avorté yóbbu yaaba dañ cee yàgg ba yóbbu di yaaba dañ cee yàgg di def lu leen saf waaw looloo am moogi dégg moo ngi noonu du ñu avorté du ñu wasin ba pare nag rama dañoo am équipe ña koy def équipe boo xamante ne dañu leen tuddee équipe ñoom defekke wuñ fi dara lu dul yéen gang bi ku ci ëmb am na ku ko mën a yàq mi ngi ci seen dafa am rama xale yi dañoo am fit de ragalatuñu dara yara yarasatuñu dara man maa la ko wax man daba ndax. xam nga lan moo gis naa ci xale boo xam ne ba mu sëyee ba tey mënut a fexe am doom. ba mu ba tey. mënut a fexe ba am doom. fu mu teg loolu. parce que yàlla dafa am lu mu bind. ci say biir. Mm. def ko muy ay nen. yow bu fekkente ni si dangaa sëy avant ngay sëy ngay ëmb chaque jour di yàq di ëmb chaque jour di yàq. Mm-hmm. di sëy ëmb chaque jour di yàq di yàq ba say nen jeex. say nen ay jeex. bu yàlla dogalee nag nga war a nga sëy war a am doom mm. fekk say nen jeex ñu naan sa jëkkër a du góor sa jëkkër la ndoxam baaxul fekk sa nen yëpp yàq nga leen ca àll bi tuur sa jëkkër la ndoxam baaxul mm-hmm. sa yow am ay kis yow de war ngaa xool sa biir bi kii de dafa taxaw rek kii de xaw ma lu ci fekk du loolu fekk nga say nen yëpp gis nga xale mm-hmm. damaa bëgg mu rek le kanamu jank taat jeeg daf fee bari wallaay dëgg kenn wóolootu kenn doom mm-hmm. ju ma jur joo jur ak keneen ak keneen dëgg la xale yu tuuti ñu am fit am na loo xamante ni si da koy tàmm ci bi ngay nekk xale te sa mooy ba da koy tàmm mm-hmm. yow amagoo jëkkër chaque jour chaque jour chaque jour buñ na laa niire nga ne yaa ko teree neex bëgguma xale bu gaaw a sumeeku dafa am xale yoo xamante ni si buñ ñëwee prime ñu sumeeku mm-hmm. tas seen sër la ko wax tas seen pendal waaw seen history tekki seen soutien bàyyi leen di teel a tekki soutien bàyyi leen di summi silip bàyyi leen di futteeku teel a futteeku waa rama dañoo solo ci silip ba di ko summi waa mi ngi noonu xale yi ji xale yi ndaw waaw loolu pour la silip tuuti boo solee silip sax ñu ne la ngaaka la xale bu góor bu ndaw wala sax lay marqué ci ba pare xale bu góor bu ndaw sax fi mu xale yu jigéen yu ndaw yi ñoom ñoo leen di xama jigéen loolu pour lan wallaay dëgg léegi benn xale gi nga daan nga dem ba takk jabar mhm. jànk ngay doon sa jabar doon jànk ñu leen di battil kopp laalo wallaay dëgg la sa bàjjen di la wan naan la ni bati kopp laalo waaw kopp laalo bi dañ koy kopp laalo la ñuy bat di la ko jox pour mu ritax am na dama koo gis dëgg la koo xamante ni si yàlla bi ma tim xam na ne li may wax dëgg la ci koor laa jóge dëgg la kopp laalo lañ ko batil jox ko kopp laalo ba muy diw pour ànd ak soxnaam doon jànk kiyam doon jànk jabar ja doon jànk waaye léegi si jënd suñu kopp laalo de xale bu mooy yow doo ma la ko wax xoola xale boo ci gis léegi mm-hmm. danaa la yaa ko teree neex maa la ko wax booy tuuse muy dem invité woon naa benn nit ndaw ndaw invité woon naa benn nit mu naan maan euh, euh, jigéen ñi danoo yomb mm-hmm. boo amee junni jot leen dëgg la mu ne ma sa décembre sax bu jotee dañuy def promotion six mille ngay six mille nga leen di jox nekk ak ñoom suba ba buddi bu doon six mille francs six mille francs ni ma six mille francs def promotion kon promo ni muy amee ci décembre yi mu ne ma xale jigéen yi noonu la ñuy amee seen promotion ay waay yàlla nañ ci yaay yi tamit ñu éduqué waat xale yi mm. bu njëkkoon sa yaay da lay ciital ni la dama lay yóbbu ci sa sàmm xool yi dëgg la boo siburoo mm-hmm. amatul ci kër yi dëgg la bu njëkkoon da ngay bàyyi sa doom xel mm-hmm. bu période tam jotee ngay dem ci mbalit mi di xool ba xam dugal na ci coton walla mm-hmm. di ko xool loolu rama amatul amatul ah? ñuy bàyyi xale yi xel bu baax a baax a baax léeg-léeg sa doom toog indisposé wu gisul xam nga ne ko lan moo tax gisoo sa mbaax retard day am mhm. nga jiital ko ba ca sa chambre mhm. ni ko kii kat gisul mbaaxam lan la nangam ak nangam mhm. léegi léeg nga yor sa doom di ko bàyyi xel di ko xool jar na nga dem ba pharmacie tiital ko ni ko damay jënd test nga nga nga nga sal baax na ci de loolu yëpp amatul mhm. loolu yëpp amatul ñun suñuy mhm. génération suñuy sama maam bi ma yar loolu la la daan def dëgg la bu sa moroom tëddee fajar mu yeela mu yeela ni la jógal ni la kooku tëdd na demal waaye nag lekk boo nga fay leen di fa ndékki dee nag nga ba nga am fay ko mais léegi loolu amatul naan loo gëj a gis <laughs> ñu naan raw balaa moo gëj a gis ñu naan raw moo raw moo amati naa xale léegi dañuy dem li ndëm yel maa la ko dañuy teel dem yor seen valise di soko sok bu njëkk yow bu la sa jëkkër takkee da ngay tiit ba da ngay gis mbaax wallaay dëgg la da ngay tiit ndax jël gëm la war a jël mhm. da ngay tiit ci sëy gi nga war a sëy ngay jooy sa yaay di jooy sa yaay di jooy dem nga ngay dem ndax sëy ba yow ngay yow jooyoo sëy ba de méttit wa nga war a jànkonteel kay ci guddi yow loo ngay jooy waaye xale yi léegi mhm. nii dañu def jël seen saak bu ñu defee nii daal di jël seen sa saak tubaar fakkaala macha allah lonko mhm. jël seen sër def ci mhm. jël seeni i nuisette jël seen i fer am seen fitu jël si xoola lu ne ñu jënd ko lu ne la ñuy jënd yow xam nga ne jeeg bo xale boo xamante ne si dañ lay doog a takk nga war a dem jàkkaarloog sa jëkkër ngay jënd secret de femme maa la ko wax aka fee bari torop dama dama cee xam dara maa la ko wax ah danga koy jaay jënd secret de femme. maa la ko wax jënd yoo xamante ne si. xale yu mën a jënd secret de femme te ñuy tardé allah. xoola nga daan nga nga jënd ko ii docteur fi ne moom damaa war a dem gisanteek sama jëkkër jaay ma nangam nangam nangam man la ah. waaye yow li teel na da xaar boo demee ba tëdd ba pare ba ñëw waaye docteur jaay ma rek nag waa docteur bu bëggee xaas nu muy def. jaay la dalay jaay nga dem. ni fi tukulóor yi indi woon. xoola joolaa yi indi ko. yi indi ko fi moom lañ war a delloo xale yi lan war di tafati tax dañ ñu woon dafa araam waaye man bëgg naa ñu leen tax ah! eh, waaye bala ñu leen pexe di bala ñu leen a tax xarafal leen de te xarafal bi moom bëgguma ko ndax kon doodu <laughs> ñu jàpp neex <laughs> ah, <laughs> ñu xarafal benn gone lu tax bu ñu leen xarafalee du ñu jàpp neex jàpp neex yow tamit dafa mel ni cere jën rek ah, cere yàpp waaw nga ñëw rek dindi yàpp wi mais ram doon ñeex mi jël ñaam bi jaa yëm ni ko waxal cere ji waaw léegi rama léegi lan moo ci pexe lan moo ci pexe ba leen noonu te delloo buum ca boy boy boy di woo xale yi di waxtaan ak ñoom mm. ba pare ñuy seetaan suñu émission yi gis ñuy def dafa am solo trop wallahi dafa am solo mm-hmm. nañu koy seetaan mm-hmm. di xam ni gi nga jigéen mm-hmm. dafa am valeur wallahi dëgg la jigéen dafa am valeur wallahi bu valeur desatee ci moom jógee ci moom dara desatul jógee ci moom dara dara dara desatul ci moom ak boppam jigéen boppam rek la am mm-hmm. te jigéen élastique la fa bu bari da lay ubbi wallaay bu bari di nga yàqu élastique boo koy ñoo rama ba mu dem ba dagg day dem ba lâché day lâché yëpp ni sàññ ca kaw ni mm-hmm. lay demee moo tax man la jigéen élastique la mm-hmm. lu ne nag dañ koy jënd pour jëm di fermé waat sa kanam waaye boo demee ñaari yoon ñetti tarkal la di nga xam ne bii ak bu xale bee du benn wallaay dëgg la waaw kon nag nañu nañu nañu nañu nañu xoolaat suñu bopp. maa la ko wax te góor ñi dañoo bëgg lu seere rabat góor ñi dañoo bëgg lu seere de. ah boo seere man la lu seere lañ bëgg lu ubbeeku wuñ ko dara yàlla na ma yàlla baal ci jëkkal ci kàddu gi <laughs> suñu waxtu daf ñoo dam ah sama yaay booy rama dama lay bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak askan wi la doon seetaan waa xanaa di di di sant bu baax rek mhm. sant bu baax a baax a baax a baax di wax ne bu ñu bu ñu bu ñu waxee dara te juub rek nañ ñu baal mhm. nañ ñu baal dañuy waxtaan rek mhm. dañuy waxtaan di leen di dajee ba jeudi. incha allah incha allah ba maat ci mm, kàttan yàlla nga xam mm-hmm. di sant bu baax Fama Faye ah, waaw waaw Fama Faye sant naa la bu baax a baax bu dem ba lii lay def de borom RDV lépp yow la moom animatrice rek lay wër di leen solal lépp lii da lay def maa la ko wax te li mu te li muy sol moom lay solal macha allah maa la ko wax joxoo ma joxoo ma jinne de déedéet <laughs> jinne armoire joxoo ma ko mu jommal sama yëre déedéet wallaay mu dem ba wallaay dëgg la xoolal li xew ci jamono nga ma jox. Mhm. nga solal rafeyaa sañseel filaale sànneeku defal la sa sax. bakkeer laam jërëjëfati. waaw Fama Faye Fama Faye jërëjëf ñu ngi lay kontaane bu baax a baax. Fama Faye nee naa la ku bëgg presse bu sëq karaw ku bëgg ñegenaay boo xamante ni furir la ba mu fees mhm. tubaarkàlla da lay seet ndax nee naa la baax baax bi yaa koy jaay yow. waaw waaw bu demba ndàcc mi ci loo fa mangorom far bay teey ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaar yaa génne rama ci rafeyaa waaye man nag maa génne ci romb mm-hmm. tubaarkàlla macha allah ak bu buy ris yoo xam ne danga koo paqueté tegle ko faama yàlla la yàlla defal jàmm nee naa la yow réew mi xamuñu la tubaarkàlla ni teral noonu nga mënee teral sa nawle yàlla la jàmm mm-hmm. bàyyi la fi guddal sa fan bàyyi la ak sa njaboot bàyyi la li nga bëgg yàgg kon yàlla na ko suñu borom yàlla defal arama li moo nekkoon tey émission bi eh, ci gel gel yi ñu leen jox dig daje beneen ak beneen thème jërë ngeen jëf